génn waaye zone yi kenn du dem kenn du dem ñu des zone yi incha allah ñoom tamit seen tuus indi seen seen i seen i mbir zone ah, nga xam ne zone yi Kër Masar yi waane duñ bañ zone yëmbali tamit def leen ko moo tax incha allah dinañ fa gis yu yoo xam ne incha allah dina am le deux incha allah ah dem na ci yoro borom le deux le deux allah dinañ xam satara kan la am le deux dinañ xam traga kan la am le deux tamit dinañ xam à ah, fas ak ah, ak ak yeneen gars yi kan la am loolu incha allah dinañ ci dinañ ci dinañ ci ànd ak yéen bu soobee borom bi. ci kàttanu borom bi incha allah le deux ñu neen ko am direct fidèle info le deux incha allah Modou Gueye. Moustapha loolu la ñuy wax mooy football autrement. Mhm. Euh, le sport autrement le nawetaan autrement. Mhm. mooy euh, tirage bi nga xamante ne interzone yi leen jël. Euh, lu toll ci neuf neuf neuf zones. loolu nag maa ngi koy a gis ah. effectivement effectivement ba ma dalee couvrir nawetaan ba tey. maa ngi doog a gis ORCAV boo xam ne dafa dajale neuf zones yëpp tirage ko mu nekk une première une première ci biir Kër Massar am mel ne ORCAV bu Kër la waaye dafa indi yu bees ci nawetaan andi yu bees waaw ndax gis bi nga xam ne fan yi moom la moom la ñuy def te jeexagul sax incha allah la la la trente et suba ci kàttanu borom bi waa jaxaay ñoom ñoo aaye ma ma leen ci woo yéen ñëpp ñu dem maye ji dere ndax dafa bokk ci ak waaye incha allah ñu la xaar baax baax Bas Badiane mën ngaa may ay poche yu bari ndax may na la kàttan gi may na la ko incha allah Bas suba incha allah waajal ak équipe Fidèle info bi ànd ak Hadiza suñu jigéen ñun dem maye ji deret ca jaxaay Modou Gueye. mooy mooy mooy sport hmm. autrement bi mu andi hmm. dafa ñëw teg ay plan d'action. maanaam mu ne man dama bëgg mobiliser sama jeunesse. dama mhm. bëgg dajale sama jeunesse. ci mhm. la laay commencé ci ay mhm. don no sang. ci la laay commencé ci ay don dem ci école yi. jàppale leen ci la laay commencé ci ay cours de renforcement. pour gën a renforcer. samay samay ASC ak seen i doom. ci loolu lañ commencé ma ak lan.

andi ren mu nekk euh, idée bi nga xamante ne ñun ñëpp waa Kër Massar gi yëpp ak li ko woon dañ ko dañ ko dañ ko saluer mm-hmm. bu baax a baax baax ci njiitalu euh, le président Mountaga Maal yéen ñi message di ma laaj naka ngeen def ko dugg da ngeen di woote ci 76 951 75 79 76 951 75 79 mooy bu mu jokko bi nga xam ne képp koo xam ne bëgg ngaa dugg ah boo duggee foofu di nga lan la bàyyi nga jox sa xalaat ah sama gars maa ngi leen di bëggee bu baax a baax a baax a baax yéen ñi nga xam ne yéen nekk ci live bi di maa ngi leen ciy bëggee bu baax a baax a baax a baax président Cheikh Gueye gis naa ko ci Modou Gueye ah muy baax a baax a baax Mayel Diop waa jàppoo ñeen ci ñëw waa jàppoo ñu ngi ñu ngi ñëw ci jàppoo Mayel Maodo Sarr saar ngi ci Maodo Sarr Sarr Maodo ñu koy nuyu baax a baax a baax a baax Seydi général Hmm, maa ngi ko baax a baax a baax a baax Moustapha maa ngi gërëm koo xamante ne tamit hmm. effectivement suñu suñu société la nekk mu ngi commentaire muy Kumba euh, Bekaay Sarr Kumba Bekaay Sarr moom tamit mu ngi ci commentaire xanaa moom Bekaay Bekaay Bekaay Bekaay ko jur Bekaay mooy jëkkëram ah Bekaay Bekaay mooy jëkkëram mooy borom këram Kumba a baax a baax a baax ñu gën Modou Gueye mercato bi gis nañ euh, Kër Massar tamit wane seen bopp xam naa ne Modou Gueye euh, dañuy dem ay see bu bu bu bu Sotarak hmm. Modou ren te Soose Trac dem dafoon duggoon duggoon duggoon duggoon ba xolam sedd. effectivement lan nga ma mën a dikkal ci waa Soose Trac seen mercato bi ren. Soose Trac. Mhm. moom il ne déçoit jamais comme on le dit le plus souvent du mës a décevoir ci wàllum joueur. Mhm. il ne déçoit jamais jamais jamais. Mhm. moom fu fépp fu mu mën a euh, rafetalee nawetaanam. wala taaralee ko. daf koy dem jëli ji. andi ko teg ko. moo loolu la defaat ren. Ah, décevoirul ay ay supporters dem def na li mu war a def. maanaam mooy dem jëndi ay joueurs andi leen. andi leen pour ñu mën a jongante ci nawetaani ren mm-hmm. mais mm-hmm. mais lan mooy finalité bi mm-hmm. c'est ça le problème c'est ça le problème Castor Sotrac du décevoir ci joueur mais à tout le temps ci chaque saison dafay décevoir ah ñu yaakaar ni ren ah, ak li ñu jot a am yëpp ah, du duñu duñu duñu décevoir ñu ñaanal leen fu kawe kawe kawe ci pomm parce que def nañ ay moyens pour pour nawetaan parce que recruter nañ Moustapha ay joueurs yu bare bare bare bare Castor Sotrac ren dañoo décidé xam nga man sama problème mooy fa déggé fa déggee faa. Mhm. moo déggee laa xam ne kat sotraak ren amna lu mu nar. dañu défi maa ngi nuyu baaxa a baax a baax pap cham Pape Thiam bu sotraak ma nuyu ko baaxa baaxa baaxa baax ak sama gaay yi nga xamné ñom ñoo ñom ñoo nek fofu euh ah, Papa marté ñu nuyu ko baax mu suñu mu suñu mu suñu way mom tamit euh Papa marté kañ ngay ñew nek sponsor ci Fidèle Info ndax kat site bi sóoruwu la mi ngi sa mi ngi sa côté kon papa ñu ngi lay wo baaxa a baax baax Papa marté domi domi sotraak jilé liggéey ren euh, Oustaz Sotrac li nga wax ci mhm. daanaka moom la gars yi di di di naa wax na problème mu mooy Sotrac du waaye ren ak information yi nga xam ne moom laa am foofu noonu Sotrac ren moom wax ma la sori sax waaye war naa mën a jël sax coupe bi moo effectivement war naa mën a jël coupe bi comme chaque année Moustapha. Mhm. loolu laa loolu sama débat. Mhm. comme chaque année Castors Sotrac. ah euh, day équipe bi nga xamante ne da naan ni ni ñii waaw dañoo war a dem ba ci ba ci ba ci finalité euh, pomme mais nag da ngay dem ba ci mu yàgg seen premier match deuxième match ñu ñu ñu ñu ñu ñu décevoir. Mhm. wala ñu ñuy toogee premier tour. Mhm. te loolu loolu waratul am. Mhm. waratul am vu que euh, recrutement yi ñuy def. loolu c'est une déception te day tax sax supporters yi ah dootu ñu amati kóolute confiance ci jour wala seen dirigeant mhm. te war que ñu ngi def li ñu a def mhm. ah, dañu est-ce que nga maa ñëwaatal ci ñenn ñi nga xam ne ñoom ñoo dellu si foofu Sotrac wala ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoom waaw am nañ Koulibaly Koulibaly moom dafa renouveler contrat renouveler contrat mhm. ah, mu nekk tamit euh, benn ak central baax centre mhm. ak bu baax a mhm. baax bi nga xamante daaw gis nañ ko mu def saison baax Sotrac e, effectivement mu def mhm. une très bonne euh, euh, bu baax milieu de terrain baax a baax a baax a baax nga xamante ne tamit dafa renouveler contrat fa la nekkoon daaw moom euh, boo xamante ne kenn dootu ko pare faa dafa ñëwaat dellu si na faa faa dafa ñëw wala faa dañ koo dëdd dafa faa Grand Médine la nekkoon Sotrac dafa jënd faa faa waaw faa dafa jugee faa bu Grand Médine waaw demoon déggoo ndax ren yëpp gars yi namoon nan faa faa demoon yëmbal demoon yëmbal effectivement dafa ñibbisi dafa ñibbisi ñëw ñibbisi Sotrac noo déggoo la football daaw waaw ñibbisi na Sotrac faa faa bu Grand Médine moo ñëw Sotrac kon faa xam nga daal ren bëgg naa gànnaam bi ak Sotrac daje loolu gën naa am de. loolu gën naa am loolu gën naa am genre derby yooyu gën naa am. Hmm. loolu dafay hmm. neexal nawetaan. mu ngi hmm. mel ni rek léegi léegi match bi ñu fi doon wax. mooy ASC Daaru Salaam. Euh, zone de Ticmbay. Ah, mu nar a nekk match bu exceptionnel. Ah, match bi nga xamante ne. Ah, match bi nga xamante ne ñëpp dañ koy xaat ci ci ci ci ci ci Sénégal. ak ak li ko moom loolu lañ bëggaat tamit. ci Sotrac ak. ak Grand Médine tamit lañ ci bëggaat bu baax a baax a baax. Mhm. am nañ tamit euh, mhm. malik Evra. Malick Evra waaw Malick Evra. Mhm. moom euh, mu ngi Sotrac. am nañ tamit euh, Ino. Ino tamit ñëw na Sotrac. Ino moom mooy seen góol bi mooy góol bi mooy góol bi mën a góol ko am taay. ba mbokk Ino daan ànd ak rek wala Ino mooy loolu. Ino. am nañ tamit Jean. Jean Jean Jean tamit moom dafa renouveler contrat dafa renouveler contrat am nañ tamit Ndiir. Ndiir na Ndiir. waaw am na Ndiir. am ah, na Ndiir tamit mu ngi ci. Ah, moom itamit ah, mu ngi mu ngi mu ngi Sotrac mhm. ah, macha allah mu nekk joueurs yi nga xamante ne yoon lañ jot recruter mhm. waa Sotrac ñu leen di xaarandi ci ci ci ci ci nawetaan bi ren rek mu mhm. nar mu nekk jour yu exceptionnel Moussa Ba ay see kaso Sotrac ñu nuyu leen baax a baax a baax di nuyu wax seen président di nuyu sama gars yi nga xam ne ñoom ñoo nekk foofu ñoom ca ñoom ñoom ñoom ñoom Tidiane Camara nga xam ne moom tamit dama koy tooñ à chaque fois naa ko yow zoru zoru zoru zoru Sotrac nga di nuyu sama gars yi nga xam ne ñoom ñoo nekk foofu Bouye Gueye moom tamit ah Bouye Gueye mu sotoraak ñu ñu nuyu ko baax a baax a baax a baax a baax hmm? di jaajëfal gars yi nga xam ne ñu ngi ci live bi di ñu seetaan di leen di di topp euh, Fidèle Info ci ci ci ci programme à chaque fois yoo xam ne mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi koy def euh, maa ngi jaajëfal baax a baax Ibra Diop Mbaye Fall Ousseynou Camara Baye Sène hmm? maa jaajeful jaajëfal baax a gaay yi nga xam ne message fu ne di jaay di di ñuy wax ñu ñuy top moo diggee ñu suñu duggee Sotrac day dem and juboo effectivement and bu bu bu ala ala and jubo bu saw and jubo bu Marian, ma ngi nuyu marian baax a baax a ndax degg na ni degg na mo moy vice présidente and jubo bu bu bu bu bu keur Massar moo diggee and jubo ñoom tamit def recrue bu am solo ren. ànd juboo def ay recrue mhm. recrue yu ama am solo mhm. ah, recrue yi nga xamante ne ñoom itamit ñu ngi waajal seen Moustapha mu mhm. mel ni nawetaane ren mercato bi dafa mouvementé trop trop trop trop da ngay yi exceptionnel yi nga xamante ne dañuy ci biir Kër Massar loolu la waa ànd juboo def ah, jënd nañ ay joueur ah, ku ci mel ni Mansour bu jógee ay see diisoo diisoo diisoo la jógee gis nañ daaw diisoo wane boppam moo di koy saison bu baax ay see diisoo nekk ay see bu bees effectivement ASC mhm. Diouf neck nekk ASC bu bees saison exceptionnel exceptionnelle mhm. Baba Baba Sall aussi jóge na jóge na kel mhm. Baba Sall waaw grand Baba Sall ku football effectivement Baba Sall Paul aussi tamit jóge na euh, municipal municipal euh, euh, rejoindre na ASC Djibo am na tam Bas Jémme Bas Jémme jóge na Medina Kel ñëw na ASC Diso uh-huh. ak tamit Moustapha Moustapha du man Moustapha du yow kii nag ah. équipe bu bu nekkoon Almadi 2 Almadi 2 rejoindre na tamit ASC ànd ah, juboo ànd juboo ànd juboo recrue Mariane kon yaa ngi def liggéey bu rafet bu mucc ayib moom Mariane gis nañ ko noonu ci photo yi mu ànd ceeg Zori ah Mariane di sunu di sunu jigéen di sunu rakk di sunu xarit hmm, bëgg alaaji paate wax dëgg yàlla waaye bëgg mouvement nawetaan bu Kër Massar Mariane bëgg club bu Kër Massar kon Mariane wax dëgg yàlla ñu lay jaajëfal baax a baax a baax sa taxawaay ah, su ma gisee ay ñoon Mariane ñoom Colette Lëppi Hadiza xadi mu bu bu bu bu bu jaxaay ah, hmm, wax dëgg yàlla ay jàmbaar lañu ay jàmbaar lañu ci ci ci nawetaanu Kër Massar. sama xel dem na ci sama xel dem na ci Nabou Ndiaye Nabou Nabou Ndiaye ah man te sëy ba ak ah, ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi ci ñu ngi ci ak nabu Ndiaye bi nga xam ne moom moo nekk zone 5A ñi nga xam ne ñu ngi ñëw ci mouvement nawetaan di leen dooleel ndax wax nawetaan wax jigéen kon ñu ngi leen ci jaajëfal baax a baax waaye Mariane tamit mënuñu koo ñàkk bañ a jaajëfal ci taxawaay bi nga xam ne moom la moom la moom la am Modou Gueye euh, déggoo am na coach bu bu bu bees. ay see déggoo ay see déggoo daaw ka fa nekkoon vice prés euh, vice vice vice président. déedéet daaw ka moo nekk adjoint coach man vice président ku nekkoon adjoint coach daaw moom moo ñëw nekk coach principal bi ren di kan Modou Gueye dimbali ma ci. coach Aziz. Euh, Aziz Aziz. Aziz Aziz euh, euh, moom moo nekkoon adjoint coach uh-huh. Déggo bi daaw mhm. euh, moom lañ tabb SAE le nouveau sélectionneur bi mhm. nga xamante ne am na am na Modou Gueye kuy yëglu kuy yëglu ci buumu jokkoo bi dama koy jël su ko defee suñu ñëwee après ñu wéyee effectivement asalaamaaleykum salaamaaleykum kooku Bachir mi ngi ci mu ngi ci mu ngi ci mi ngi ci leneen hmm? Modou Gueye Aziz nga xam ne man xam naa Aziz ci qualité bi nga xam ne moom lay moom la ñu ngi yëgluwaat Aziz hmm? Modou à chaque fois ni mu ni mu ci njàmbaata bi Aziz. bëgg bi Aziz ci mën ko bi physique ah ñu ñu ñu ñu ñu dalal ñu a baax a baax ci ASC bu nga xam ne moom ay am la ASC xolom la moo Gueye. effectivement mu nekk ay de këram ay de këram la yoraat. muy euh, ASC bi nga xamante ne euh, nangu fa jugee nangu dem fenn proposé nañ ko lu nekk pour mu dem fenn mais ASC Deggo moo nekk ci xolam euh, ba tax na mu nangu woon daaw nekk adjoint coach ren nag ñu kat Aziz kaay nga yor pour nga mën a doxal jox nañ ko ko nag ñun ñaanal ko yàlla mu def saison bu bu bu exceptionnel. Mhm. muy coach Aziz. ASC ASC Deggo tamit boobu noonu ñu dese ñu sa ndax ay jour yaakaar naa am na ci ñenn ñu dem waaye am na ñenn ñu ñëw. Uh, dominant road fan ak fan lan dem rôle Modou Gueye effectivement ASC euh, Deggo euh, recruté na 4 joueurs mhm. euh, quatre joueurs yi nga xamante ne de très haut niveau lañ jot a 4 quatre joueurs yooyu Caaroy ak Joal lañ jóge <laughs> ay Caaroy ay Joal Joal donc ñoom foofu lañ dem mhm. nit ñi dañuy wër ay fit yu leen jege mais ñoom dañoo dem ba Caaroy wala ba Joal pour recruter fa ay joueurs. Mhm. ah looloo dal xel ñu bàyyi ñu def rek liñ dal seen xel. Mhm. loolu lañ def ah, ñoom ñoo war a euh, fekk si ASC Deggo ci ren ci pom yi ci nawetaan. mu nag daa ASC yoroon ngan di équipe waaye am boo bokk ci yenn pool yi yoo xam ne ay ndaanaan yoo xam ne da nga daje ak am sens waaye ASC Deggo gis nañ daaw wax dëgg yàlla waxate de ngan di équipe man équipe bu ASC Deggo daaw bi ma ko seetaan dama ne équipe bii mën naa jël coupe ndax Bamba ah, moo leen yoroon daaw gis nañ aussi yenn booy yi nga xam ne ay booyam lan a chaque fois moom laa ko noonu laa mooy tuddee yu leen fekk si ah wax dëgg yàlla daaw mu def équipe bu baax def saison bu baax wax dëgg yàlla waaye des fois manque de sens day am ah manque de sens day am waaye daaw li indiwoon daaw su ko si idée ren wala mu yokk tuuti ah kon dëggoo ren du neex a du neex a téye maa ngi jaajëfalu baax gaa yi nga xam ne ñoom ñoo nekk foofu ñoom laay ba di suma di suma waay ah laay ba bu ASC Deggo ah Abdallah ma jaajëfal leen baax a baax a baax sama gars yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ASC ASC Deggo ay Modibe ba sedd ah, micro bu Kër Massar loolu lañ ci amagum ñetti ASC yu lañ ci amagum ren man ren dama dama am benn problème boo xam ne dama ko gis Kër Massar muy ASC yu mag yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci ci Kër Massar mën naa cee tudd ay Grand Médine Mouride bu asafula bala ñoo jeexal nan nan kon ne des na des na cité Aynou Mady. cité municipal. waaw cité ay Mady ak municipal. des na kon neel Mouride après su doog a ñu doog a ñëw ci ci ci ci ci débat bi. effectivement damal ma cité Aynou Mady bu Bakary damal ma cité Aynou Mady bu Yves damal ma cité Aynou Mady bu bu bu bu bu waa Kër Masar ndax Kër Masar ay cité Aynou Mady dafa bëri ay ay ndaanaan yoo xam ne ñoo fa dëkk waa Nasaf maa ngi leen nuyu baax a baax a baax ñoom ñu ay cité Aynou cité Aynou Madi euh, li ñu jot ci information mooy euh, euh, am nañ quatre quatre nouveaux arrivés ñi nga xamante ni dinañ ñëw rejoindre rejoindre ak ak effectif bi yaakaar naa ni sama sama sama sama réalisateur bu dee mu ngi image dina ko dina ko relater ci ci ci ci te am nañ quatre nouveaux recrues ñi nga xamante ne dina ñëw dina ñëw ci ci ci dinañ ñëw rejoindre équipe bu cité ay Madi. Mhm. cité Aynou Madi moo duggee da nga gis ñoom teg. tekkaaral hmm. boo xam ne boobaak léegi euh, moom lañ defoon waaye dafa mel ni fan yi ñi ngi wane seen bopp ci ci ci ci ci mercato bi euh, gis naa Yves dugg na hmm? mel ni tamit si ta ay nu ma di gawoon moom lañ gars yi bëgg a del del soit ndax gis nañ daaw am na kuy woo am amoon sax am na ku nekk ci bu jokkoo bi asalaamaaleykum maaleykum cinq mu baax yaa ngi baax technicien yi ah. ñoo réeral numéro boobu ñoo réeral téléphone boobu. Ah. waaw. ah man de maa aha maa ngaan ren ñu ngi xaar zone cinq a ci organisation bi trop trop bi nga duggee wax nga ko waaye lu ñu jaaxal mooy tirage bi nga xam ne mooy am la deux ODCAV woote ko ne damaa woo neuf zones yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci ODCAV bu Kër ñu ñëw ñu def tirage. Ah. nan nga ma mën a dikkalee ci loolu maa waaw waaw waaw comme loolu initiative bu bees la initiative boo xam ne ODCAV moo ko moo ko initié. Mhm. pour regrouper les neuf zones du département de Kër Massar. Mhm. pour ñu parce que auparavant zone dañ naan defar seen dañ naan def seen tirage bopp. dëgg la mais ren ci surtout vraiment le président de l'État. Mhm. moo doon zone yi nee ñoom ñëpp dafa bëgg ñu daje. changement de deux. au niveau de l'État. pour def le tirage. nga xam ne mooy regrouper tous les zones. dëgg la aussi tamit bu defaa tourisme ñu ngi ci bu ok. kon la xaar ci tirage bi en tant que Mangane mi nga xam ne am na expérience ci ODCAV bu Kër Massar ndax ma nga fa la leen xaar ci tirage bi incha moom comme ni koy comme ni ñu ko ni ñu ko xalaatee rek. mooy organisation bi la la ODCAV moo koy initié moom moo koy def. les zones nag dañuy ñëw aussi tamit gunge initiative boobu noonu. mooy que ne nekk.

defe naa ne ak initiative bi ONCAV jël si tamit. Mhm. ñun dañuy ñëw rek indi suñu tuus ci affaire bi nag quoi. Mhm. te Kër Masar dans Kër Masar amul man man amul benn différence ak li ñu daan def. Mhm. dañ ci ONCAV moom ñu rek ONCAV moom buy def day def au a mën a a di ngeen gis ay ay ay a baax a waaw Moussa Fall <laughs> mhm. mu ngi noonu. jaajëf Mangane bu zone 5A. di ah, ngeen li wax ci tirage Modou Gueye ah. muy loo xam ne lu bees la. Odekaaf moom moo koy def. Euh, incha allah dinañ ci gis yu yéeme incha allah. mu nekk mu nekk ku jàmbaare. Mhm, Mangane mu nekk ki nga xamante ne kenn dootu ko. ci Kër Massar dëgg la ñu ngi koy siyaar bu baax a baax moom mm-hmm. dama koy wax Baye Fall mouvement nawetaan dëgg la Baye Fall mouvement nawetaan fépp képp ku woote mangaan moo cay njëkk jiitu mm-hmm. ah, ñu ngi koy siyaar bu baax baax di ñu ko ne fi mu teg tànkam foofu la fu mu teg loxom foofu la na continuer na xuuf jëm ci kanam mm-hmm. incha allah rabbi lépp dina leer mi noonu ba tey yéen ñi may malaaj numéro mi ngi noonu ci écran muy 76 951 75 79 képp koo xam ne bëgg ngaa dugg ci bu mu jokkoo rek da def ni mangaan nga jaarale ko foofu Pape Faye maa ngi lay xaar baax a baax a baax a baax ndax tamit bëgg naa nga wax ma mbir yi nga xam ne moom moo nekk suñ kanam waaye bëgg naa tamit nga wax ma ci ndorteelu euh, euh, nawetaan nga xam ne euh, ñu ngi koy waajal foofu ci zone onze ak tournoi interzone bi nga xam ne à chaque fois day am tirage nañ ko am na équipe yi war a daje Pape Faye boo duggee incha allah ñu gën a gën a yaatal wala Cheikh Gueye maa ngi ci xaar wala Cheikh moom bu reeree rek daanaka biir bi day fees mu noonu bu duggee sànq ñu nekkoon ci ASC ay nu Mady Euh, technicien sen dugon nañ ñi nga xamne nga amuñ na seen tur wax yalla if de dafa envoyé affaire rek aju. effectivement xamna ni da am lu muy bañ xam nga cité ay nomades ASC bu mag la. ASC bu mag waaw ay sé municipal aussi daw jëlon coupe bi. bu jël coupe euh, ren euh, ren mu ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi ci mi ngi ci mi ngi ci waccay bi. sé municipal. Mhm. momi tamit ren mu ngi ci waccay bu baaxa baaxa mhm. ba mom tamit pratiquement mhm. mu ngi recruter ay joueurs. sé bu bu bu bu municipal. Ah, ma ci nuy baax baax anti sar anti bu bu bu municipal hmm? di suñu jigen euh gaay ni ngi xaar émission anti anti gaay ni lay xaar baax a baax a baax eh? cité cité municipal. Eh, eh. cité municipal. Ah, am nañ ay arrivé. Mhm. Ah, ku ci melni Kader Koli. tier Koli mhm. Khalil Thiès ak Baba tal Baba tal Baba tal Baba tal ah okay Baba tal Baba tal taal nañ aussi tamit ay départ ku ci mel ni Yaya Yaya Paul mhm. Jomboxo mhm. Euh, ak tamit am nañ benn coach boo xam ne coach Bira mhm. bu ASC Mbooloo ñu ngi en négociation ak moom pour ñu mën leen yor ren Bira Bira bu Mbooloo di sama waay Bira sama waay la ñu nuyu ko baax a baax a baax boobu moom Bira moo dee sànq mooy li ma doon wax ndax damaa seetlu ay see yu mag yi nga xam ne mu ngi Kër Massar ren damaa déggu seen dara dara dara te su wéyee mercato bi di jeex mu na kel ci la bokk ja euh, Grand Médine ci la bokk bokk gox ci la bokk ah CONACAF 2 ci la bokk ay ren damaa déggu seen dara dara dara dara dara boo déggee lu ma jàngatalee affaire yooyu noonu ah tekki tekkaare gi nga xam ne moom moo ci ay am ci ay say yu mag yi lu waral lu nu mel. ay say yu mag yi Ah, xëy na eh, li ñu yoroon daaw daf leen doy sëkk sëkk mm-hmm. ah, ba ñuy ba ba nga xamante ne ah, mm-hmm. lan yan moyen la ñuy trouver mooy moyen conserver leen ba nga xamante ne ñoom ñëpp dinañ am ku ci nekk temps de jeu mm-hmm. wala ku ci nekk di nga mën a satisfaire sa bopp ci biir ASC bi wala ku gis sa bopp ci ASC bi moo tax xëy na dégg guñ seen dara xëy na seen dara ruusagul wala xëy na wanee guñ seen dara fëse fësalaguñu seen dara yaakaar naa ni noonu lay demee dañu sob jël naa jël naa benn journée boo xam ne maa daanaka ay see yëpp ma woo leen ku ma woo fa ka ma fa xam wala ma woo dirigeant yi laaj leen lan moo xew du ma la woo sax may laaj ne la xanaa ren mi nekkel na ta nawet ah wala grammaire nar ta nawet waaye nag gars yi ñu ngi waajal ñu waajal ñoom ñoo nëbb seeni mbir ah waaye ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi waajal Modibo Korog gis nañu ay see jàppo bu Kër ma Massar def acte bu rafet def def def def loo xam ne Modibo gars yi nañ ne euh, bi ñu dugalee ci riiru neetaan nga xam ne foo la lépp riiree gaa nen jappo moko moo ko def waye wa mi nekkeel nen dedet déedéet mi nekkeel moo ko def en 2011 hein Modou Gueye nga xam bu ndek gaa ni ñuy xoolee test jour yi rek dañuy dem ut ben foy rek danaka euh woné ni jour yi jour yi kii nan waye dama gis jappo ak korok ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu defé ak euh, euh, test ki kii euh, médical jour yi mu def lu mu rafet ñu gis <laughs> Rasoul ga na gaay ma mooy nan rasul mas Rasoul masque mu yoron parce que asma la ma leen déedéet <laughs> parce que au niveau la <laughs> moom la waa ASC jàppoo yor ah, moo diggee rafet loo xam ne ah, dafa baax aussi ci ci ci santé jour yi ah, médical bi koro jaar na woon mu nekk benn innovation bi nga xamante ne comme on l'a si bien dit jàppoo chaque jour day màgg mhm. chaque jour day évoluer mhm. chaque jour day andi loo xamante ne ñëpp day mhm. taf seen gémmi à savoir que ni sponsoring sponsoring bi nga xamante ne daf leen sponsorisé ah, ci seen may jàppoo moo ko fi ñëpp andi ah, donc du coup dafa di koo xamante ne ah, chaque jour dafay évoluer de temps à autre nit ñi nag dañ leen di tooñ rek mais xam nañ ne jàppoo ASC bu mag la day innover te day na nawetaan chaque jour lu bees li nga xamante ne ñu dañ koy copier. ah mais ñox mel na kel rek cette histoire c' est une très longue histoire. c' une très longue histoire. donc muy ñaari ASC yi nga xamante ne ku ci nekk. da ngay jéem innover ci sa côté loo te jàppoo li mu def nii c'est une innovation euh, mouvement nawetaan yëpp salué nañ ko te di nga gis incha allah dans les jours à venir ou bien dans les ay ASC ko def. Hmm. ci biir ci biir ñu gis mer mer mer mercato bu bu jàppoo lenn moom ci métti mooy sama technicien dañ koy affaire moom mu naawal ko. Hmm. Hmm. waaye dañoo bëggoon dugal jàppoo ko ni nga xam ne noonu lañ dugalee yeneen gars nga xam ne noonu lañ des waaye technicien bi dañ jox muy Basir Badiane nga xam ne moom lu ko neex lay def borom doole la li ko Sané di Sané di wax naan ko yàllaa la ëpp doole waaye jox nañ ko foto jàpp wooyu waaye moom moo ko naawal waaye gis nañ ci retour euh, abu Diop. Modou Gueye ah, boo xam ne day sono mu nekkoon mu nekkoon euh, ay Sotrac euh, daaw le football dafa delluwaat jàppoo parce que jàppoo le football la saison passée.

wala moom moo 89 suma waa ji ñu ñu ñu dugal waa jàppoo yi su ko defee ñu ñu ñu continuer moo diga ASC Teranga aussi par maa leen di tooñ ñoom naan leen ñu jënduñu ñu kenn waaye dafa mel ne sama wax jooju baax na si ñoom biñ ci jógee laa gis ASC Teranga nduggee ne fu ne fu dem na gis naa ba jour bi jouru raay bu kees ah ASC Teranga mu mel ne indi na doole ren moo duggee ASC Teranga andi na doole ren. Mhm. Ah, andi ay recrues yu baree baree baree bari bari ren. Mhm. Ah, mu mel ni ah, nekk na ASC bi nga xamante ne dafa nekkoon ASC bi nga xamante ne ñëpp dañ ne ay ASC Tra kañ lay recruter kañ lay recruter ren nag macha allah mu def benn recrue ay recrutement yi nga xamante ne nit ñi. dinañ ci dinañ ci dinañ ci dinañ ci mën a mën a mën a mën a bàyyi xel bu baax a baax baax baax Moustapha ma ñëw ci kenn ci fàllu Fallou Lo Fallou Lo Fallou uh-huh. mi nga xamante ne euh, daaw mu ngi nekkoon euh, GFC uh-huh. si je ne me trompe pas ah, GFC kon uh-huh. euh, SA yi rejoindre na ASC Teranga am nga tamit Gassama Gassama Gassama mi nga xamante ne ASC Teranga xam fu mu jëlee Gassama ASC Teranga Gassama jaraaf la jógee Gassama bu jógee jaraaf jaraaf ASC Teranga andi ko ci biir ay ASC mu nekk recrue bi nga xamante ne recrue bu exceptionnel bi nga xamante ne Euh, ñëpp dañ koy dañ koy saluer muy Gassama. Mhm. ASC Teranga tamit euh, jibi Amadou ah, Gueye kii Basir wax leen ko mu dugal photo photo photo photo photo photo Gassama gars yi kan mooy Gassama eh gars yi xàmmee kan mooy kan mooy kan mooy kan mhm. euh, am nañ tamit Bamba Bamba mi nga xamante ne Sotrac la fubal daaw nee na nga delluwaat ci Gassama Gassama waaw Gassama Gassama nga ne fu mu jógee. Gassama euh, jaraaf la jógee. ah jaraaf jaraaf la jógee. Euh, rejoindre ASC Jaraaf bu pap fay bi équipe bu Pape Faye bi. Uh-huh, jaraaf uh-huh. jaraaf de Dakar mi nga xamante ne euh, mooy mooy lëmbee championnat. Uh-huh, mi nga Gassama bokk na ci jeune jeune jeune jeune jeune jeune joueur yi nga xam ne ñoom ñoo jël coupe Sénégal. effectivement Gassama effectivement Fallou Ngok ñëw na ci Fallou. Fallou moom tamit génération foot la foot la jógee GFC. autant pour moi football club Géejawaay football club la jóge mm-hmm. euh, rejoindre euh, ASC Teranga Fallou Ngok mm-hmm. ñu ngi koy gis noonu ci image yi koo koy mm-hmm. koo koy koo koy fàllu bàmba euh, juge Sotarang oti aussi Modou Bamba Tidiane Camara dafa ñibbisi <laughs> Tidiane Camara dafa ñibbisi ndax xam nañ ni bi sant yàlla daje ak ak ak ak ak Teranga Tidiane Camara bi moo dugaloon bii bi moo waraloon Teranga qualifié quart de finale kon Tidiane Camara ñibbisi na daaw Sotrac lañ ko gisoon moo liggéey ren mu mu mu ñibbisi moom Ahmed Tidiane Camara. effectivement euh, Tidiane Camara euh, ñibbisi nañ. Euh, ñibbisi na ay see teraanga. Mhm. daaw Sotrac lu footballeur. mais mhm. dafa ñibbisi dëkkam. Mhm. li la ñuy wax doomu dëkk bi. waaye dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa nag day ñibbisi indaale. indaale xam nga kuy tukki ñibbisi indaale. effectivement moo liggéey bu indaale Bamba. effectivement Bamba bu Sotrac ah. effectivement Bamba Bamba Bamba di xale boo xam ne xale bu mën a football excentré gaaw wax dëgg yàlla ah. Bamba nga xam ne Grand Diop moom moo ko moom ko moom moo ko moom ko yoroon njëkk ko may chance football loo ko senior ah, ba indaale Bamba mi ngi noonu. indaale Bamba ah, Mbacke Beye neen nga bàyyi ay jouram yi ngay wane nee na nga bàyyi ay jouram yi ngay wane. Ah, mhm. ci kii uh-huh. am nga tamit Hakimi. Hakimi Hakimi renouveler contrat am contrat am Busquets aussi. Mhm. renouveler contrat am mais moom mhm. ay jeune génération ay jeune kii yi nga xamante ay jeune joueurs nga xamante ne dañoo ay jeune joueur yu monté ku ci melni ni Ibou mm-hmm. Ibou ku ci melni ni Ibou ku ci melni ku ci melni aussi tamit euh Djibi Djibi Djibi mooy gardien Djibi moom mo jëlone mm-hmm. mo jëlone ku coupe cadet yi daaw coupe cadet mooy mo moo jëloon coupe cadet yi daaw ñoom mm-hmm. uh, ñu monté ñu monté ñu monté ñu monté ren uh, ñu nara andi eh, doole ci ci ci nawetanu ci ci ay cetera nga ñu noonu ñu ngeen di ñaan sans ay say taranga daaw amuñu benn ndam ay nii rek lan amoon gis ci commentaire yi nga naan bàyyil sama jour yi dugal waaye yaa jënd ñu dugal ñun moom lantinoo rek la duntee diw yaa jënd ñu dugal ren nag incha allah taranga fexe leen a am ndam taranga fexe leen a fexe leen a fexe leen a fexe leen a fexe leen a gagné ah Amet nekkoon daaw ah, Engey muy takk ren mu ñibbisi mu ñëw taranga ah Amet moo diggéey mi ngi noonu Amet ah moo Gueye aussi Bachir boo ñu mën a dugalee foto photo photo photo photo Bassène euh, Bassène ñu mën a dugalee photom euh, Bassène mu bàyyi ko ASC Daaru Mifet Basel non Basel mu jugee es es raay raay raay la jugee ah raay bu bu bu bu bu bu bu bu kees fa la jugee ñëw ay say teraanga ay say teraanga ay jour sàmmi laal ma loolu ma jaaxal ASC Teranga ay jour championnat la laal Modou Gueye Modou Gueye mi ngi noonu. ASC Teranga ay jour championnat la laal. Mhm. Ah, mu nar a mu nar a nekk comme liñ ko waxoon Moussa Ba euh, nawetaan bu nar a exceptionnel. <laughs> parce que ASC yi ñu ngi jënd. maa ngi maa ngi nuyu maa ngi nuyu Mbaye Beye. Euh, Mbaye Beye. Mbaye Beye waaw Mbaye Beye di trésorier ASC Teranga. di booy bu naye naye naye naye naye nga xam ne du génne dara muy mbay ma koy ma koy ma koy ma koy nuyu baax a baax a baax a baax a baax mbay bu bu bu bu bu trésorier ASC <laughs> trésorier ASC Teranga muy booy bu nay ASC Teranga am ngeen problème bu dee mbay moo nekk seen trésorier du génne ah, kon yaakaar naa regroupement yi du neex ren du ma dem regroupement bu Teranga ndax regroupement yi du neex ñu hmm? noonu mbokk yi ASC Teranga na ngeen fexe am ndam nag daaw amoo leen benn ndam ñaari niil ngeen fi am nii nii nag ah, seen dëkkandoo yi di firdaw si niin aussi ak ASC Déggo ah ASC ASC ASC ASC dëkkandoo dàppoo hmm? dóor ren ren incha na ngeen wane dara ñu leen di xaar incha allah ren gis naa lu doy waar kon mbokk yi dañuy dem publicité suñu jugee publicité su ñëwee ñu dem dem dem dem dem dem dem dem jaxaay nga xam ne jaxaay mercato ba tamit moom tamit tey ngeen am lu garaaw a garaaw garaaw garaaw bu